Nous gërëm ci seen ñëw bi soo ba léegi yéen ngi topp suñu caravane bi di suivre activité muy activité proximité contact ak population yi tey ñu ñëwoon fii qui marché bi ak euh, garage Petersen message bi population yi c'est le même message ci élection yi la askan wi di am di ci ni mu koy manifester mooy tànneef gi ci boppam mooy tànnaat ñan la wóolu pour ñu mën ko toogal bii nag mi ngi tombeek élection législative mooy ay député la ñu war a yeesal euh, ñun li ñuy wax askan wi mooy nañu ubbi seen bët nañu ubbi seeni nopp surtout nañu déglu ràññet ràññ mun a ràññee diggante ñiy woote ndax ñiy woote bëri na wax nañu 47 liste defe naa gulet la ci Sénégal waaye tànn suñ ko wax rek mooy dinga jël dara bàyyi dara ci loolu ñu ko war a defee ñaari anam rek la ko askan wi war a defee mooy benn ñiy woote ñëpp nañu xool lan mooy seen discours lan mooy seen message lan mooy seen mbébét ci réew mi waaye ñaare loolu du doy ndax mbébét bi moom boo mooy suul du sorante ndax benn politicien du ñëw taxaw ne man de mënuma wala xamuma wala jubuma wala sama loxo setul moo tax pour mottali loolu nañu xoolit jaar-jaaru ñiy taxaw di woote ndax Sénégal réew mu ndaw la ku fi woote rek mun nañu xool jaar-jaaram am na ñoo xam ne démb ak barki démb gis nañ li ñu fi def ndax nekkoon nañ fi moo xam fa ñuy liggéey la moo xam bi ñu leen dénkee réew mi lu ne gis nañ ko fii ci Sénégal bu ñu doon réew moo xam ne dañoo gaaw a fàtte kenn ku ne ci ñun suñu xoolee jaar-jaaram kii ma àndal di docteur Sall jiite MRDS mun nañu xool jaar jaram fii la dëkk ci dëkk bi yaroo fi màgge fi di fi liggéeyee nekk fi cadre nekk fi professeur ci université man mii kazalika ndax barki démb laa jóge Lempo te liggéey naa fa 15 ans mun nañu xam may kan ak fu ma jaar donc loolu suñ ko dajalee dina permettre askan wi ñu def le bon te li du ñuy tànn du lu tuuti assemblée nationale du foo xam ne nit dina fa dugg ne tey man maay gouverner Sénégal executif mooy président de la république ak gouvernement am ñooy gouverner waaye gouvernement nag balaa muy am solo ñu mun koo saytu ñu mun a xool ndax li muy def jaar na yoon ñu mën a tax ndax ñoo mun a xool ndax liñ ko dénk mu ngi koy yor ni mu ko war a yoree ndax alalu réew mi ngi dugg fi mu war a dugg loolu nag assemblée nationale moo koy def ndax assemblée nationale ñaari gën a fës ci ay prérogative am mooy benn moom mooy wote loi yi war naa mun a jote wote ay loi yu baax ci réew mi ñaar moom mooy saytu gannaaw bi mu wotee ndax loi de finance muy budget bi ñoom ñoo koy wote waaye gannaaw bi ñu ko wotee may nañ leen nag ñu saytu est-ce que xaalis bi fi mu waroon dugg dugg na fa su doon assemblée nationale mu nga def loolu tey scandale yi fi am yëpp depuis ArcelorMittal Petrotim ak carburant bu bon bi ñu fi doon jaay ak li xew barki démb ci baccalauréat bi ak li xew Kédougou li xew ci suñu jën yi napp gi loolu yëpp defe naa su doon asa assemblée am na taxawaay bi mu war a am loolu du fi am Sénégal waaye soo seetee même ci pàcc bu njëkk bi juróomi at yi weesu yëpp assemblée nationale benn loi la boo xam ne moom moo jël initiative bi te yoon ne ko moom moo war a jël initiative de la loi loolu ay musiba la te nag nañu bay fexe ba bu ñu juum askan wi na xam ni woteel liste Macky Sall mooy woteel euh, pasar pasare bi ñuy pasar pasare alal réew mi mooy woteel ñu jël suñu petrol jaay ko mooy woteel jël suñu économie 80 pour cent ñu jox ko tubaab yi mooy woteel avons euh, signé accord de partenariat économique nga l'Assemblée nationale tey assemblée nationale ratifié mooy tubaab yi Sénégal ba faw ndax suñu industrie mënul compétir ak compétir bosam euh, bu nous donc nañu ràññetle bu baax li def bàyyi kii ma neex wala kii moo andi 5000 francs ou qui andi ay t shirts Nous avons pour suñu avenir doom ak suñu avenir sët la du nous kon nañu xool bu baax ni ñuy la ndawi askan wi liste bi tudd pencum nawle message boobu la ñu mën a délivrer. waaw Petersen dañ ko tànn parce que ñun suñu campagne dañoo dañoo décider mu bañ a doon campagne yu mbumbaay campagne yu dem dajale ay nit ci ay meeting da jox leen ay t-shirt wala xaalis diw ay kaar yàq xaalis bu dul jeex te lu jëlewul jógewul jógewul lu dul ci keesu état bi ñun dañ ne campagne moment la boo xam ne képp koo xam da nga am mbébét ci réew mi. da nga am yéene ci réew mi danga war a dem dajeek population yi dajeeg population yi nag mooy fekk leen fa ñu ne seeni liggéeyukaay seen i dëkkukaay nga dem fekk leen taxaw ak ñoom waxtaan ak ñoom waxtaan bu ñu mun a dégg moo gën nga dajale nit ñi euh, ñu musique pendant deux heures temps nga ñëw jël microne su ngeen ma falee dinaa def ay usines yuy def suppu kànja ak nangam nangam loolu dafa war a jeex Sénégal. moo tax bi ñu dooree campagne bi ba léegi démb barki démb Pikine lañ ko commencé Pikine Thiaroye Yëmbal Malika. Euh, euh, Kër masaar ba daaneele ko jàmm gën démb ñi ngi woon marché HLM ak li ko wër tey ñu ne dañuy ñëw commencé ko fii continuer dem ba booru Sandaga niñ ko defee fii lañ koy def suñu demee ci région yi itam noonu lañ koy defee jamono ji ñu ngi jamono nawet dinañu dem fekki nit ñi fi ñuy liggéeyee nañ dem fekki nit ñi ci tool yi waxtaan ak ñoom déglu leen aussi xam seeni i mbébét loola tax ñu choisir ñëw fii euh, di visite de proximité ñu fi ñëw it wax dëgg yàlla nit ñi dalal nañu déglu nañ suñu wax waaye ñun déglu nañ déglu nañ leen bu baax a baax ba xam lan mooy seen bébét ëllëg nag bu yàlla defee ñu wóoluñu rawati nañu jox ñu majorité assemblée nationale damay faral di wax toujours candidat élection législative bu ñëw neleen su ngeen ma fale ma soppi réew mi dinaa def li dinaa def li daf leen di wax lu leen lu ko neex loolu du cëru député li ñu leen mën a dikk mooy buñ ñu buñ ñu wóoloo ba yóbbu ñu assemblée jox ñu majorité li ñuy dégg ci yàq yàqute yi nekk ci réew mi yëpp te nguur gi di ko def bu soobee yàlla dina fi dañ parce que li ñu constitution jox ci cër mooy ñoo war a saytu ni ñu yoree réew mi dinañ ko def ba mu mat dinañu jël aussi ay xeetu loi yoo xam ne am nañu yaakaar ni askan wi dina ci gis njëriñam bu baax a baax a baax a baax mun nañ ci si te yu ndaw a ndaw mooy tey li tax lii mën a yomb mooy corps de contrôle yi nekk ci réew mi muy IGE muy cour des comptes muy leneen leneen dañ leen jël tënk leen ci loxo président de la république loolu lu ñu war fecc la ba ñoo ñu am seen autonomie def seen audit jox ko directement procureur de la république su dee procureur ta eh, eh, eh, yéex na ci def liggéey bi ñoom ñu mën a substituer procureur daal di saisir directement le juge buñ ko defoon léegi nger gi wàññeeku te nger gi su wàcc nger gi su wàññeeku ci yoon bi ci ci dëkk bi xaalis gi nga xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy jël di ko yóbbu ci ay banque suisse ak feneen ak feneen suñ ko xappaatoon ci réew mi askan wi gis gis ci boppam ñaareel bi moy dinañ jël ay xeetu loi yo xamné pour promouvoir l'emploi gouvernement mo wara créer les emplois mais assemblée nationale mën na jël ay xeetu loi né ku fi ñëwati di investir Sénégal amna minimum 80 bo xamné ci sa effectif di cadre di personnel subalterne yi ci doomu réew mi la wara joggé jóge sa capital bi ngay andi fi minimum 51 pour cent war na nekk ci loxo ay sénégalais sauf soudé nak amuñu ñom doolé ba mëna jël capital bobu ak yeneen ak yeneen dinañu réformer yenn loi yi nga xam ne code général des impôts baaxul ci askan wi code pétrolier baaxul ci askan wi nañ ko réformer andi ay code yoo xam ne wax dëgg yàlla day gën a gérer intérêt sénégalais yi balaa muy gérer intérêt étranger yi yooyu ay mandarga la rek ci li ñu li ñu war a mën a def parce que bëri na trop.